Sering bi xaada lahu laahu lahu neena li ak yar la mune di len gaawee top ndigal yi ndax dana waral ngërëmul yalla subhanahu wa taala di len moytu tere yi te koy baña a ndax yeexe gi dana waral ak nor ci ay bakar yalla nañu ci yalla musal di len rafet njort sa su ndigal bayiko ci seeni kilifa kon da ngeen am li ngeen bëgg di takko ak lañu len tanal, mu joge ci seen borom kon da ngeen am ay mbot kep koy takko ak lako yalla ya subhanahu wa taala tanal dana am mbot ak leer yuy dox digam ak lendam akuk ak akuk ak ak na neena lepp lo xamne nak nekul luñu ñu ci ay pas-pas ak i wax ak i jëf bu len ci jëm naka nona ay melo kep ku jëm ci lo xamne ne ko faw rek mu dajeeg la mu gërëmul képp kuy taqoog yàlla képp kuy taqoog la yàlla gërëm tey moytu la mu gërëmul suñ borom dana ko may ay leer fa moom ci tey ak ëllëg di leen soxla woo xam-xam bu am njariñ di ko jàng te koy jàngale ngir jëm yàlla subhanahu wa taala mi taxawal diineem ji ci xam-xam bu am njariñ waxuma nag xam-xam boo xam ne du yokk imaan ak islam ak ihsaan di leen jëfe li ngeen xam te ànd ak teggiin képp kuy jëf ci lu dul xam-xam jëfam day neen képp ku xam te du jëfe du jariñu képp ku xam di jëfe te du ànd ak teggiin ñaawal na yàlla nañu ci yàlla musal nee na képp ku xam di jëf te ànd ak teggiin rafetal na lu rafet nag lu rafet rek moo di ak fayam bu leen taayal ci xam-xam ak jëfe ak teggiin képp ku taayal ci xam-xam réer képp ku taayal ci jëf perte képp ku ci teggin sori yàlla wa taala tayal nag ci xol ba muuru lay jóge te muuru xol mi ngi juddoo ci bakkaar yi subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wasalaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamina sëriñ bi xaadalahu laahu maxtaara lahu nee na bàyyi leen jëw moo gën a bon lekk bàyyi leen jëw moo gën a bon lekk medd te loolu leer na dee leen moytu iñaan ndax day dindi barke dee moytu rëy ndax day waral ak suufe ak lor dee leen taqoo sopp bépp julit dee leen bañ bépp yéefar dee leen taqoo ragal yàlla subhanahu wa ak topp sunna si yonente bi salallahu taala alayhi wa sallama na ko yàlla dolli tedd nga ak wóolu moom ak i ñooñam ak i saabaam ak képp koy woote ci diina lislaam subhaana rabbika rabbil izzati may sifuna wasalaamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamina sëriñ bi xaadalafu laax mataloo bi mu tàmbalee ci tur yàlla subhanahu wa taala lii la wax dafa wax ne yow mii bëgg ak yow mii bëgg àgg cëppee yàlla yi maa ngi lay dénk ngay tuub ànd ak yéene dëggu ak akuk rafet akuk rafet njort ci yàlla subhanahu wa taala mu ne lii dey ñeent la yoo xam ne danañu waral ak àgg waaye seenu safaan danañu waral ak ñàkk àgg xaraf yi nag képp ku leen jàpp di leen jëfandikoo dana gis seeni njariñ sëriñ bi xaadalahu laahu maxtaara lahu nee na lii dey moo ko tuddee taysiiru rahmaan fii jawaabi xillina omar ñaan maanaam jàppandalog suñu borom mii xéewale xéewalam yu matali ci tontu sama xarit bi nga xam ne moo tudd omar ñaan radiyallahu taala anhu euh, mu di tàmbali ne maa ngi sant suñu borom mbi jàppandal lu jafe té mom day modi di bi ñepp di jublu ci seeni haajo muy buur bu baax té mëna mayé té te am katan yàlla na doli tedd nga ak wolu ci yonent bi sallallahu taala alaihi wasallam ak ñooñam ak li li ak koy laaj mi ngi taxé ci lañ koy tontu mu ne yow Ahmadu sama mbokk yàlla na nu yàlla subhaanahu wa taala wattu ci balaa yi xamal na lépp lu ab jaam di soxla woo ci ci ak dundam la ca gën dey moo di ragal yàlla subhaanahu wa ragal yàlla mooy lépp ndax moom day moo boole lépp luy jariñ tey ak ëllëg kon mu ne ragal yàlla subhaanahu wa taala mooy lépp ndax moo boole lépp luy jariñ tey ak ëllëg te mooy musle mooy waral ak kawe ak ko tedd moom ragal yàlla subhanahu wa mooy yoonu gindiku ak xéewal yëpp mooy fekk gàkk yi te bisu faatu ba ak ci bàmmeel ak bu nu dekkee moom ragal yàlla subhanahu wa taala mooy musle ci sawara di àggale àjjana moo tax sëriñ bi de ko maa ngi lay digal nga farlu ci ragal yàlla subhanahu wa te ruus ko kon danga am ak sell bul sàkku njariñ ci kudul yàlla subhanahu wa waaye bu ragal lor itam ci ku dul yàlla subhanahu wa taala mi nga xamee ne moo bind mbindeef yëpp ndax mooy moom de mooy lor mooy jëriñ moom suñu borom amul kenn ku mën a jëriñ amul kenn ku mën a lor ku dul suñu borom subhanahu wa du keneen mu ne ko boo amee ay xéewal del sant yàlla subhanahu wa taala boo amee ay tartar del muñ boo amul tuyaabay sant del fexe am tuyaabay muñ bu fekkee da bëgg ngërëmul yàlla subhanahu wa taala del jihaatante ak sa bakkan kep ku la defal lu rafet de ko sant waye kep ku la def lu ñaaw nee nga jéggal ko kon yalla subhanahu wa taala dana la gërem del xamne ne mbinde fi ci lo xam yalla lañu nekk moom borom may ma ngi lay digal ngay baña beuril say nelaw ak say wax ci lo xamne amul njariñ del xalaat fatali ko de te tit tey jàq ngir ragal dara raw la del gaawe julli juróom di len julli ci seeni waxtu tay lebal sa borom lebal gu rafet del def sa liggéey muy jariñ jullit ñep te di leen moytoo lor waxtu wu nek del xol sa ayib bop te baña xol ayib keneen kon suñ borom dana la gërëm bul anda kenn kudul kulay jeme ci ngërëmul suñu borom subhanahu wa taala ndax xarit bu nek kat ab xaritam lay roy motax bul xarito kudul ku jup bu fekke da nga bëgg xam yu yi da ngay setal sa xol ci mbolem aybi ndax aybi ñoy waral do gis yu nëbb yi naka noona moy yi ñoy waral do gis may yi ma ngi lay digal nga sax dak ci alquran ak sunna su yonent muhammad sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tey jëfee lii ma la digal yàlla nu subhanahu wa taala may yow mujj gu rafet ci aw yiw ci daraja yonent yalla Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam sallam bi qadalahu allah maxtaara lahu bi mu tambale ci tur yalla subhanahu wa taala lilawah. la wax ma ngi lay sant wala bok ma ngi sante yalla subhanahu wa taala ci soppanteeg ci diineem ak ñaka nonante gi tay ñaanal sunu kilifa gi gën te mooy muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallama tedd nga ak wóolu moo ki ñooñam ak i saabaab li fekk laaj mi ngi bëgg koo tontu ginnaaw loolu muxtaar yàlla na la yàlla subhanahu wa taala may la mu la tànnal ci àdduna ak li ngay sàkku ci man muy dénkaane bu lay jariñ ak na fi man bu wér moo tax ma di la wuyu ngir nu mën a làq diine tey sàkku ndimbal ci yàlla subhanahu wa borom far na ma dimbale kon jàppal loo xam ne dana seral sa xol bu fekkee da ngaa bëgg am njariñul taxaw guddi tey nelaw da ngay bàyyi mooy yàlla subhanahu wa taala ci bëccëg gi boo bëggee am tiyaabay koor te doo woor da ngay wattu saw lamiñ boo am ngëneelul borom xam-xam yi da ngay settantal ci mbindee fi yàlla subhanahu wa taala mel ne si ak asamaan si boo bëggee am ngëneelal sarax del digle lu baax di tere lu bon boo am ngëneelul asaka del téye sa bopp ci lépp lu la am ngëneelul del takko julli mbolo ba beugé am ngëneelul ñi jaamu yalla subhanahu wa taala ñëpp del yërëm jullit ñëpp ba beugé am ngëneelul wali del takko li ngay gërëm ci sa bop nga di ko ci julit gi yalla nanu yalla musal muhtar sama tontu fofu la yam di wéy di ay way yu rafet ci ndimbalal suñ borom japp ko te mokal ko te koy jëfé kon da nga am li ngay bëgg lepp aduna ak alakhirah yàlla nu yalla subhanahu wa taala def mak yow nu bok ci ñi am kulité ci ak ci ak xalku ci daraje yonent bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama yàlla na ko yàlla tedd nga ak wul moo ki ñooñam ak i ak kep koy jubal nit ñi ci ñoom ba bes bu ak halku ba di fi ak ñi yeewu ñi ngi taxé walis ñi reer kon mi nga wax foofu la ñuy taxaw ba di ñaan suñu borom defal ñu dégg ak alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh